xañ na leeragul ci seen bopp mooy bu ñu demee ba président Macky Sall bàyyi pouvoir bi moom li mu gis mooy président assemblée nationale mooy toog te bu boobaa dañuy jaxase carte gi maanaam ñi bokkul woon dinañ war a mën a bokk beneen liste moom mooy am élagement ligi yëf mu mel ni dafa jaxasoowaat ba tey waaw yëf yi jaxasoo na président Macky Sall la nga xam ne moom la waxoon loolu la dëggal euh, firndeel ko ndax euh, il insiste il persiste et il signe nee na sama mission à de ce pays s'arrête le 2 avril le 2 avril du ma nekkati président de la république du Sénégal dinaa joxe leng yi loolu nag dëggal na ko ki nga xam ne mooy suñu confrère nga xam ni euh, daanaka lépp lu mu wax jëmale ko ci président de la république moom bu yeboo nga jàpp ni lu am la muy euh, Madiambal Diagne euh, xam le na ni nit ki tey ji président de la république Macky Sall dina saisir le conseil constitutionnel pour wax leen ñu jéem a président bu nga xam ne moom mooy eggale euh, euh, mandat bi maanaam moom mooy euh, moo ko fi wuutu par intérim loolu nag soxna naata dafay poser problème parce que dafa am condition yi nga xam ne moom la loi bi prévoir muy ni président fi ñu ko mun a remplacer mooy mu démissionner mooy mu génn àdduna Euh, am na beneen troisième condition bu nga xamante ni tamit bokk na ci euh, yooyu bu dajee ci la ñu war a wax ne président de la république wala mu am empêchement démission empêchement ou décès loolu la loolu la ñu wax waaw bu boobaa nag euh, le président de l'Assemblée nationale moom mooy assurer l'intérim mais dans ce cas de figure bi ñu nekk nii y a pas de vacance du pouvoir parce que président ci cas de figure yooyu yëpp amu ci moo tax bu maître Sidiki Kaba di wax ne euh, c'est le président de l'Assemblée nationale moom moo ko nar a wutu ñu jaxasewaat carte gi ñëpp dugaat ci euh, ci rang yi loolu am na juriste yu nga xamante ni ni ànduñu ci en tout état de cause tey ñi ngi jëm ci lu xam ne moom la ñu tuddee étude juridique maanaam benn cas de bu nga xam ne ci wàllu loi bi mooñaale wuñ ko ci tëggaale ko ci maintenant ce serait inédit ce serait inédit ce serait inédit muy lu kenn mosul gis ci réewum Sénégal te ci guta googu la ñu nar a jëm maintenant comme on di dit la balle est dans le camp du conseil constitutionnel les sept sages dinañu àddu jëm ci euh, datu élection yi ba xam dañuy nangu euh, nii le 2 juin boobu yi nga xam ni moom la dialogue bi proposé président entériné ko ndax ñoom dinañ ci d'accord ak i tamit lu jëm ci vacance pouvoir bi naka lañ koy réglé en tout cas li wér te moo di ni fi mu nekk nii carte gi jaxasoo na euh, te xam nga loi dafa bari interprétation ku nekk yaa ngi interprété xam naa ni shérif bu ñëwee léegi dina indiwaat euh, code électoral bi nga xam ne mooy arme de guerre am teg ko ci taabal ji wax leen li nga xam ne moom la ci yoon wax mais en tout état de cause on va vers une situation inédite et face à une situation inédite il faut absolument l'arbitrage du conseil constitutionnel. Euh, Cheikh situation politique bi dafa jaxasoo tendu ba sax moom moo indi certainement li dal suñu naataangoo ñu fàttali ko encore une fois Maimouna Ndour Faye qui a été agressé ba mu génnee ci émission bi démb ñu gaañ ko ba jamono ji mu ngi hôpital sax ñu ko fay faj Cheikh Tidiane mhm. euh, man sax du ma ñëw ci li nga xame ni moom moo nekk ci euh, téere yi respect li wax loi beeg euh, ak li mu àndal démb kii wax na ko fi euh, doyen Assane mu fi toogee que lu mali il est déjà fait fi mu nekk nii réparer rek lañ fi mën a def te je pense que suñu demee ba toll foofa actuellement surenchère bi ci réew mi dafa war a dakk naata parce que côté bale su amee ñi nga xamee ni ña ngay xëcc di fëgg seeni dënn beneen côté bi tamit euh, ñuy def la même chose mais mais fu ñu jëm Macky Sall nee na un mois moom moo ko fi desee mais dañuy continuer waat di xeex ak moom ba un mois yooyu jeex un mois yooyu su jeexee après qu'est-ce qu'on va faire mais situation bi waxtaan rek moom moo koy régler amul foog ay concession am sortie de crise suñu bëggee il faut que chacun y mette du sien pour que ñu génn ci lu ñu mel nii parce que après fan la ñu jëm wax nga ko may mën a agressé nañ ko fi jamono di pare que ma nga bloc ña ngi koy opéré ay ñi ngi fi annoncé waat ay série de manifestations yoo xamee ni ay bakkan mën na ci rot ay nit mën nañ ci ñàkk seen bakkan loolu on va attendre on va attendre d'enterrer encore des gens de compter encore des morts ci loo xamee ni c'est sûr que ci waxtaan lay mujjee ji ci ay concessions lay mujjee ji pourquoi ne pas le faire maintenant mais ñu nekkee fii ku nekk jàpp ay égoam euh, di fëgg dëndam ku nekk eenal moromam ñu débat bi ñu tourner ko ci loolu mais on va pas s'en sortir ci précipice la ñuy jëm te boobaa euh, réew mi fi mu jëm du du neex kenn malheureusement l'exemple parfait mooy li nga xamee ni dund nañ ko démb. Mm. une dame boo xamee ni dafa liggéey wàcc boo xamee ni day def liggéeyam am ñoo xamee ni neex na leen am ñoo xamee ni neexul leen mais fu mu mujj dafa wàcc di dugg këram ñu jam ko paak. actuellement heureusement qu'elle était au téléphone ni ko Mamadou waxee sinon c'est la personne qui a donné l'alerte. ndax bu fekkonte ni nekkul woon téléphone xaj na. mën na fa avant ñu koy sauver mën mën na fa mën na fa toog ba ña ba ñàkk bakkanam et tout ça c'est c'est dans ce climat de de haine de peur bi nga xamee ni ñoo koy dund te dara andiwu ko lu dul nos hommes politiques à commencer par le président de la République ñi nga xamee ni tamit topp ko bëgg chaise am bi ñooñu aussi ils sont tous dans le même lot. même si le premier responsable c'est le président de la République qui pouvait nous épargner tout cela mais am na yegsi na nañ ci xool nu ci génnee avant que ñuy compter ay moor moor yoo xamee ni xamuñu fu ñu jëmee je pense que hmm. c'est c'est c'est malheureux wax dëgg fa yàlla fii fii la ñu toll fii la réew mi toll tey jii wax dëgg fa yàlla mënoon nañ fi bañ a yegg. Hmm, Ibou il y a mois ñu ngi ko doon wax naan euh, élection présidentielle bi c' est l' élection de toutes les incertitudes. Mhm. mais tey plus que jamais dara daanaka leeratul lépp a jaxasoo lépp a lëndëm on dirait bien. waaw wax nga moo bi lëndëm à chaque fois dafa mel ni euh, soxna naata bu ñuy avancer ñu gën di dugg ci lëndëm boobu donc euh, président de la république Macky wax na fi euh, fan yi ñu génne. li nga xamante ne euh, mooy dialogue bi am na ay leader politique yu dem am ñoo xamante ne demuñu euh, ku ci nekk avancer say argument ak li tax nga am euh, boobule option li ñuy des ci li nga xamante ne moo aju ci wàllu politique bon ni ñu ko doon waxee rek dafa mel ni jamono ji nga ne ci yoon jekki saay am benn obstacle boo xamante ne moo la tere avancer su fekkente ne da nga taxaw naan obstacle bi damay xaar mu jóge foofu ba moyul dina di nga fa yàgg l'idée aujourd'hui c'est de trouver vraiment une solution à cette situation situation urgente quoi que l'on puisse dire élection la ñu bëgg am parce que njiitu réew mi wax na ko nee na la dat de mon départ reste absolument ferme waaw est-ce que dañuy toog di xaar mu dem pour ñu ut beneen euh, solution moi je pense que aujourd'hui ñi nga xamante ne ñoo seex langue politique bi war nañu mën a toog waxtaan xool ni nga xamante ne loolu la ñu mën a def ngir ñu mën a dem élection ci ni mu gën a gaawee parce que boo ko deful aussi situation bi ñu nekk nii vraiment on a envie que vraiment qu'on passe à autre chose parce que li ñuy wax à chaque fois le plus urgent aujourd'hui ñun ñëpp xam nañ ko ndax sénégalais yi sonn nañ te vraiment ils ont envie de vivre autre chose leneen li ñu ciy toftal mooy euh, defe naa Sidiki Kaba ay hypothèses la joxe euh, soit tenir élection yi comme li nga xamante ne dañu jàpp ne moo génnee ci euh, dialogue bi mën à savoir le juin wala bu loolu mënul am njiitu réew mi bu demee président assemblée nationale bu toogee bu boobaa dañuy reprendre processus bi te loolu defe naa euh, mën nañ ko épargner parce que temps boobu ak leneen énergie ak koppar bi ñu ci dugalaat am na feneen fu mu xej donc euh, li ñu war a def tey mooy fexe ba élection yi Euh, donc la balle est dans le camp de, du conseil constitutionnel bu ko defee aussi ñu xool ci moment bi mu gën a jàmpee euh, ñu organiser élection bi et puis on passe à autre chose li may jeexale soxna naata mm, c'est par rapport à notre sœur Maïmouna de tout cœur avec euh, vraiment elle euh, ci li nga xamante ne moo dal ci kawam donc euh, ci ndorteel ñu ngi doon wax léegi l'élégance démocratique ci boor bu mu mën a féete nag mooy ñi nga xamante ne ñoo nekk ci langue politique bi mooy militants yi nga xamante ne euh, ñoom parfois xëy na du ñu saisir le mot de leur leader parce que je pense pas que am na benn leader politique bu nekk Sénégal tey buy cautionner li nga xamante ne euh, moo dal ci kaw Maïmouna te ñu ngi xaar ci ñoom ku ci nekk génne wax ak sa njaboot euh, vraiment dénoncer parce que lii bokkul ci li nga xamante ne mooy rafetal deru Sénégal bu ñuy wax wàllu démocratie. bu koy du leader politique rek maanaam nit rek nit bu nite rek. non waruloo waruloo maanaam quand je vois des gens se délecter du malheur d'autrui wala ñun amuñu jotu yeewu fajar toog fii di wax lu nga xam ne ay nasa xandang la quoi. Mhm. notre consoeur a été agressée sauvagement. kan moo ko agressé loolu yoon dina ko déterminé hmm, mais euh, mais vraiment hmm. tey. man sama xol neexul quoi. Mm. am na yu nga xam ne. Malick xolu kenn ah, mënul neex. ci mais mais mais non c'est c'est grave cest à réew mi haine bi nit ñi dégagé moom laa mënul comprendre. xol yi lan moo ci ne. Euh, démb démb démb mortale mi ngi toog fii il a il a utilisé une expression boo xam ne boo ko imagé day xaw a métti mais je pense que c' est ça. il faut trucider le monstre qui est en chacun de nous. ndax dañ koy faral di wax mais yëf yi dafa jéggi dayoo euh, shérif te ndax mënoon nañoo moytu guuta gi mënoon nañ cee bañ ñu dugg ba instant yi ñuy toog naan dañuy wut ay saafara yu ñu ciy génne. suñu tool moom béy la. li na wolof naan réccu day fekk jëf fees comme ñi ngi ci guta gi moom na nan ciy génnee. fa la moom la nit ñi war taxaw ba tax na sax na principe bu rubrique bi sax mooy taxaw ci li nga xamante ne moom la journaux yi bind. mais man moom xam naa ay sidikee ak la mu wax ak ay suppléance moom nañ ko teg fële ba beneen yoon. wax ci li nga xamante ne quand même moo dal suñ naataango bii di euh, soxna Maymuna merci parce que ku nekk tey li ko li ko dal mën na laa dal. absolument voilà kon un boo xamante ni je pense que ñi nga xamante ni ñoo yor justice bi ak ñi leen yilif tey war nit war ñoo tëdd ci bilal te ki nga xamante ne wala ñi def lii dèjà yoon tegu leen lox dèjà fu ñu mën a nekk tey yittey force de défense et de sécurité mooy loolu parce que li tax mooy lu nekk réew moo xamante ni ay crise électorale ak yi taxoon nañu boom fi ab juge constitutionnel fa mujj mooy ay mbiram amnistie moom moo tax mais ñi ñi ñi contre ay affaire amnistie lii moom moo tax parce que bu fekkante ni dëgg amut justice amut foofu bu indee amnistie tamit dund raxas li nga xamante ni moom mooy ci xol yi. Hmm. vous voyez ça ci réseaux sociaux yi am na ñoo xamante parce image bi kersa mayu tey. ñu koy ñu koy wane. artiste yi si duggee mën na ci bénéficier moo tax parce que ku gis ndaw si ni ko nga xamante ni moom la ko deret ji waree tey te musiba mënoon naa am tey loo koo xamante ni ab taskatab la di def liggéeyam di yee ay nit muy def émission boo xamante ni xool ko nag émission bi tey moom semaine bi moi j'ai suivi ces émissions. ñëpp la ñëpp la invité. Mhm. maanaam fu boor yëpp tey ñëw nañ fa kon kii xam nga mënoon a tey professionnel donc ñi nga xamante nag danoo jóg ngir salfaañe démocratie wala xoqatal comme ni ko waxee ñooñu mënuñu am ndam maanaam il foo que nit ñi wan leen ni yéen néew ngeen doole ci réew mi néew doole goo xamante ni muy du bu dee doole ngeen jàpp wala c'est de la lâcheté d'ailleurs parce que bu fekkee ne attaque s'attaquer à une mm. dame kooku am njambaar rek moom moo koy def parce que surtout guddi koo xamante ni def na guddi ñu mel noonu quand même il faut quand ñu xool naka la leen mën a jafe traquer leen fu mën a nekk tey chasse à l'homme bi ça doit commencer pour wane exemple ne quand même Sénégal réew démocratie démocratie boo xamante ni liberté nekk ak boor boo nekk lépp loo xamante ni sa xalaat la nga daal di manifestation ñuy wax waxu fippoog ay candidats ak euh, je pense que lii moo jar a fippu tey parce que am na ñoo xamante ni dañ war a seppi ci suñ société yi. leen yóbbu leen fa nga xamante ne fa doon mais c'est euh, xam ne ñooy naqarloo li nga xam ne duñ ci naqarloo ñooñu na leen ci bàyyi en tout cas à commencer par la corporation d'abord parce que lii yëfu nit la nit kese nit kese soxlawul ngay nekk taskatu xibaar soxlawul ngay nekk ci wàllu politique bi wala lu mu décoration journalistes yi fi doon jug naan ay faire liberté de la presse tey lii moom moo tax quand même loo xam ne parce que c'est un danger ça peut à tout le monde ba nga xamante ni nit ñi moom ça n'empêche pas que les journalistes continueront quand même à faire leur travail comme ni nekkoon fii pour lu neex ma sàmbaar ma dem mbaag et parce que loolu c'est pas quand même principe du travail encore feddali li nga xamante ni moom mooy suñu soutien ak solidarité soxna may mënoon doon fay ak tout ce qui taxawu su ko defee yàlla génne ko déjà ci jafe-jafe bi mu nekk lii bañ fee amat ni fi bañ amee nag autorité yi quand jël seeni responsabilité parce que précédent bu dangereux la parce que ñi nga xamante ñooy les acteurs fan yëpp ñu ngi tudd mbiram conseil constitutionnel su ko defee ñoom it chaque année bu am ay élection amee ñu leen di tiital leen xooxatal même seen sécurité c'est menacé à li nga xamante ni moom nga mm. gis parce que am na ñoo xamante ni liñ bëgg dégg rek lañ bëgg nit ñi di leen porte fii ku koy xalaat ku ko mooy démocratie parce que Sénégal dafa am jaar jaar am histoire boo xamante ñi fiy jiitu def nañ ko fi te loolu nit mënu ko dindi soxla naa ko rapidement rapidement Chérif wax na démocratie euh, dama jàpp ne démocratie tool la du mbiru kuje gi ak ñi nga xamante ne ñoo yore nguur gi kese ku ci nekk dafa am partie boo xamante ne wala pàcc boo ci war a def hmm. donc taskatu xibaar bi nañ leen bàyyi ñu def seen liggéey militants yi euh, def li nga xamante ne mooy seen militantisme ku ci nekk vraiment xam rôle bi nga xamante ne. Euh, moom nga war a occuper et puis ñu def ko dans l'élégance démocratique. merci beaucoup euh, voilà cette réceptivité koy ñaanal fois moom Maimouna Ndour mu génn ci euh, lii mu nekk ba noppi euh, ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di tamit feddale suñu kon solidarité ñiy liggéey foofu ca 7TV ñu jàll ci beneen ponk muy un jour au Sénégal un dans le monde.